abdan xadiman faaza bil ayaati askuruhu sukra allazina sharibu min azbi wa lil jinaani xurribu xustu xayaatan laa turaa li xayri mucjizatan baanat li husni xayri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 ala kawnihi sururan min nabii wa liman yaxtafi salla wa sallama wa baraka alayhi llah fi alihi wa sahbihi wa kulli man talaax wa usikum fiihi wa baxdahu bi munasabati maxtira lakum min al axlaaqi wal xaqaa'iq wal axwaali wal afaali li wajhi llahi taxaala alqaa'id wa uhassirukum fiihi wa baxdahu xan fiih lima lam yuxtar lakum min alxibaadaati wal xaadaat fa innama xtaarahu llahu tabaaraka wa taxaala lakum huwa aljaamiu lissahaadaat fa tuuba li man laa yaltafitu ila xayri rabbi mulaasiman maxjira lahu min muniri lubbi wa waylun liman xaalahu iblisu ila ma saa fa innahu yulaasimu ma axsa wa asa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataykum rasulu fa xusu wa qaala allahu tabaraka wa taala fa man yaxmal misqaala sarratin xayran yara fa tuuba liman axasa ma ata bihi rasul alayhi bi alihi wa sahbihi salaama muhtisuun walila si himmatuhu tartaxi ila alxayr laa ila alkadari wa dayr wa waynun liman lam yaxus ma ata bihi almuntaxa alayhi bi alihi wa sahbihi salaama man jaada bintixa wa ausikum ayuha alixwan li wacci man kafaani sabi alxasadi walxudwan bi an laa tufaarixu maxtira lakum abada fa inna mufaaraxatahu tajru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an fihli ma kulli man lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mima yuwajjihu ila xayrikum al ajra wa rida wa sawaaba wala tatlubu karama bi xëyri taqwa fa inal karama huwa taqwa wala tatlubul xestati min xëyri asiisil muis bi jaayi habdihi nabiyihi rasulihi al ahas fa inna man adbara xanillahi tabaraka wa taala ila siwa tarakahu maha nafsihi wa hawa wa man aqbala ila llahi tabaraka wa taala maha alwasila qaada ilayhi kulla ma kaana yartaxi ilayhi min aljamila yaa ayyuha nnaasu ubudu rabbakum ittaqillaha aysu kunta man kaana yuuminu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut xad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baaraka anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yasfahu fihi inda mumiti mayti wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man waasahu wa nasiha rabbana la tusi qulubana baada is hariitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahaab rabbana axfir lana wa li ixwanina allasina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina qillan lillazina amanu rabbana innaka raufun rahim alhamdulilahi lazi jaxala yowma alxiidi yowma altawsiyati waltafrihi walitlaq wasalaatu wasalaamu ala man axrajana min sulmati aljahli walsirki walnifaaqi walimlaaq sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi sabil wifaaq wa ala man tabi'ahum bi ihsanin fi jumlat al afaq amma ba'du fa haasal yowmu yowmun mubarak wa lana fihi sayun fihi lam nusaarak fa ahmadullaha tabaraka wa taala ala ma jaada bihi fii lil muntaxa alayhi salaamahu bi jamihi muqtafi fa inna haasal yowm yowmu aklin wa surbin wa xeq bi fadli man jaada bi fatqi ratq wa man sakara allaha tabaraka wa taala fii fa innahu yasfaru bi kulli ma min alxayri yastafi fatlubu min allahi tabaraka wa taala xayra fa innahu tabaraka wa taala yasrafu ila xayrikum tayra wa tuubu fihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al isyan fa innahu yaxfiru lakum wa yakufu ila xayrikum sawi tuqyan wa tawajjahu ila rabbikum bil kitabi wa sunnati wal ijma fa inna allaha tabaraka wa taala yakfikum man abaw fihi al ijtima bi jaahi sal xasawaati al murdiya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi sawi al ardiya alhamdulillahi alladi hadayna li haasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi lasi lam yataxis waladan walam yakun lahu sarikun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min azul subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu bokk jullit yi fi daje yépp di siyaare ñépp di jiital ci nuyoo siyaar bi suñu bokk yi teew nga xam ne yàgg na maa wax ne li mu doon ci bara bi rek lan fi doon muy sëriñ Abdul Xuddus ñu ak sëriñ Cheikh ak ñi demee na ñoom di jot li kàddu yoo xam ne nag ci turu suñu kilifa yi ni fi wuutu taxaw ci jataay bii di jot li seen i kàddu ci seenu tur lañ koy waxe di ci jëkk moo di sëriñ Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moo fiy ñu sëriñ tuubaa ak Serigne Sidi mi nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Abdou Lahad sunu sunu daje ci barab bi sababoo ci moom ci ndigalam kàddu yi ñu fi jot yëpp it ci seen kàddu lay bàyyi ko ñu wóotu leen ci yu gàttalee doon mën naa bañ a gudd fàttali compte rek la ci li waral bis bii nu gën a xalaataat gën a xamaat fi ñuy teg suñu tànk bis bii ndigal ndigal ndigal lu jóge suñu boroom ñu nangu ko rek mooy law baag si fii tey jërul jaaraat te bés li ko waral ñëpp xam na ko kon li ñuy gën a soññee ci suñ digg ak sëñ Tuubaa doon ak li nu yàlla may ci tawféex ndax Cheikh Abdou Lahad daf daa wax ni kenn ku nekk kilifaam lam ca fekk loolaay sens am yàlla may nu sens nag nu am ci kilifa goo xam ni euh, manees na ni kenn amu ko muy Seexul Xadim ndax euh, sunu boroom kenn mënut a jóg dem ci moom dafa dafa digle balaa kenn jóg jëm ci moom nga wut la mu dox nu ci wasiila woo xam ne nag li ñuy bëgg di ko mébét àddina ak àllaaxira ci Sëñ Tuubaa la nekk kon nag nu danoo war a xool nag ni ñuy ànd ak Sëñ Tuubaa na ñuy doxee moom ak tawfeex ju ñu sëñ bi defal loolu lan war a jëkk seet xamit nag nen war a nekk ci biir dëkkub Sëñ Tuubaa bi waxtaan ci foofu rek lay jëm kon ñëw ci Sëñ Tuubaa nga xam ne amul lu dul moom te mu indi nu fi bàyyi nu fi te ngërëmam rek la ñuy sàkku loolu ma wax ni Cheikh Abdallah dafa wax ni kilifa nit ku ne na sa kilifa mel mooy sa sens yàlla danoo may kilifa goo xam ni ñëpp la dimbali bi ma ci jëkk indi rek benn xista boo xam ni sëñ Mat Jow Paxa doon sëñ tuubaa dafa sëñ Mat Jow Paxa dafa ñëw ci seexul Xaadim ak si toog mu ne ko Mat Jow jógal foofu nga toog saytaane fi toogoon léegi ñëw na fi léegi laaj na ma ñett ba jox naa ko ko ba noppi laaj na ma mag mu nanguwut a jaamu yàlla laaj na ma ndaw lu ta liggéey laaj na ma jigéen ju nanguwut a sëy sëñ Mat Jow ni ko Mbàkke saytaane lu ñu ci sa kër gi yaa waxoon ne mu ne ko seytaane ñëw ni fi léegi la fi jóge mu ne ko mbakke yaa waxoon yaa ahla barri yaa ahla bari yaa waxoon tam laakin unaadi kullal bilaadi woote boobu nga woote nag ñooñu nga tudd ñëpp wuy si na kon nag mbakke ñooñu boo doon joxee seytaane nu ñuy def sëñ bi ni bëri jóg dugg si biir ne ba déet si ba mu accès ba mu waccaxee kaala gi ndox ma da koo laal mu ne ko mat jaw ñaax nit baax na lool dabe naa ko ba muy dugg fa gabang ba nanguwaat naa ko delloo si waat naa ko loolu suñ tubaanu ko defal kon bu nu amee kilifa gu mel noonu war a xam na ni àndeek moom war a xam fa ñuy teg suñ tànk war a xam fa ñuy teg seen tànk bu baax ci loolu lay soññee ba ca topp nag mooy dëkk bii nu nekk nga xam ni ket sunu yaakaar yi tey ak ëllëg fi la nekk amoonu lu dul sëñ Tuubaa yaakaaruñu sëñ Tuubaa dox yi ñi tàmbali fee soppiku soppiku goo xam ne ku ne teg nga si ba bu njëkk yi ngay dégg Tuubaa ci yeneen dëkk nga ko doon dégg te dëkk bi la fi newoon a fi nekk ba léegi sunu kilifa yi fi newoon di sunu wayjur yi ak ñu fi nekkaloon nga xam ne sëñ Tuubaa da leen defaroon toftal mboolu seen gannaaw kenn mus musta weranteeg kenn ci lenn ndigal rekk fi daan dox ak lu baax léegi sii nag kenn ku ne xalaatal ci sa njabootu bopp ak na ngay doxale ñoom ak fa nga leen war a teg lii tàmbali am ci dëkk bi kenn mës koo gis ay manifestation dafa war a jeex ci Touba nun li ñu war a seq ak sëñ Touba mooy jox ko suñ bopp àdduna ak àllaxira te bañ doon doon suñ bopp dara ndax kat sëñ bi dafa bindal boppam wax ni taalibe day mel ni néew ca loxo yi ña koy sang waaye nag saa bu sëñ bi ne nangam nga ni sëñ bi tax wax wax nangam rek sala bu lextiyaat di sëñ Touba waxoon dañ te wama wama xoo sala bi muy melal murid saadix wama xoo sala bu ixtiyaar yi la ca tegoon kon nan xoolaat nit ñi doxeek sëñ xoolaat fi ñu war a teg sëñ Touba te gën a jël suñ bopp lépp jébbal ko ko àddina te xool doxin bi bu baax a baax a baax ndax kenn ku nekk la la boole sëñ Touba yi yaa ko wax wala waxalis la ko rek te nit du ndax bopp mukk te li ñuy yaakaar sëñ Touba yi àdduna tox koo jóg fa fële nu jëm rek la te barab bii nu toog daanañ fi dajeeg ñoo xam ne tey ji jiitu nañu te nun ñi dañ leen di fekk rek kon nan xoolaat doxin mi te sàmm ko te xool nen war a ànd ak Serigne te dëggal ci ndax loolu rek moo ñu jariñ tey moo ñu jëriñ ëllëg ñi ngi ñaanal ñëpp di baalu àq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.